juróom fukk ak benn daawuda ak deewuk almasi bi ci bant asalaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci émission bi weesu gëstu woon nañu ci ñaari saar yu jëkk yi nekk ci téereb saboor fii ci émission yoonu njub doon na baax lool sunu amoon jotu jàng te waxtaan ci mbirum saar wu nekk ci sabur waaye ndegam sabur téeméeri saar ak juróom fukk la ëmb loolu du mën a nekk wante bala nuy ub téereb sabor danu bëggoon a gëstondook yéen ci benn taalif bu yàlla soloon ci xelum yonent yàlla daawuda di saar ñaar fukk ak ñaar saar wii am na maanaa lool ndaxte day yëgle ni almasi bi naroon na deewe ci biir metit yu tar ngir fayal doomi aadama seen boru bàkkaar ci saar wi la daawuda mi jiitoo almasi bi junni at doon yëgle lu mat fanweeri xew-xew yu waroon a am bés bi almasi bi wara dee te sunu jànge téereb injil bi ëmb nettali almasi bi dinanu ci gis ni lépp amewoon woon tembe ni ko yonent yàlla daawuda yéglewoon kon mën ngeen xam bu wóor ne taalif bi jógewul ci xelum nit waaye ci xelum yàlla la jóge ndaxte yàlla dong moo mën a yëgle li xewi te mu amee noona léegi nag nanu déglu lu yonent yàlla daawuda bindoon ci saar ñaar fukk ak ñaar ci saboor junniy at laata almasi bi di gane ci àddina ci saar wi la daawuda bindoon xalaat yi naroon a nekk ci xelum almasi bi bés bi mu waroon a tuur deretam ngir ñu bare jot mbaaluk bàkkaar yi mu ne sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma lu tax sak wàll ñëwul te nga tanxam lu samay wonk moo ne aji sell ji nga yow mi toog ci jalub canti israel waaye man aw sax laa duma nit torox naa ci nit ñi suufe ci xeet wi sama bakkana ngi tuur ni ndox te sama yax yépp yoqi sama xol mel ni sondeel di seey ci sama biir sama doole ngiis na ba ma mel ni xandeer te làmmiñ wi taq ci denqaleñ ji tëral nga ma ci pëndu dee ndaxte ay xaj ñu ngi ma wër mbooloo mu bon dar ma képp ñu bët samay loxo ak samay tànk nanu taxaw fi tuuti ndax jàpp ngeen li yonent yàlla daawuda bindoon ci mbirum almasi bi junni at laata muy gane ci àddina mu ne mbooloo mu bon darma képp ñu bët samay loxo ak samay tànk ci wax yooyu la daawuda doon yégle ni doomi aadama naroon na bëtte loxoy almasi bi ak i tànkam maanaam daaj ko ci bant lu waral loolu lu tax yonent yàlla daawuda bind ci saboor ne nit ñu bon dina dinañu loxo yi almasi bi ak i tànkam lu tax almasi bi waroon a dee dee gu mette noonu lu tax yàlla naroon a bàyyi nit ñi ñu boom ramukat bu sell bi mu yónni kàddug yàlla wax nanu lu tax faw ramukat bi daj coono ak metit yu tar dee deegu mettee noonu ngir wuutunu gàddul nu mbugalug yàlla ndegam peyug bàkkaar moo di dee ak alkaanday safara ba faw fokk almasi bi mos metitu safara yoo xam ne nun bàkkaarkat yi noo ko yelloo woon yàlla ci yiwam dogaloon na yónni ramukat bu taqul bàkkaar ngir mu jaar ci coono yu mag dee ci wàllu ñépp noonu la yàlla mën a ubbile doomi aadama yoonu mbaalug bàkkaar ak buntu dund gudul jeex te ba tey dëkk ci njubteem almasi bi ñëw na ci àddina ngir gàddul nu mbugalu yàlla gi nu yelloo ndax sunu bàkkaar deewuk almasi bu jub bi moo tax yàlla aji jub ji mën a àtte jub képp ku ko gëm li yonent yàlla daawuda bindoon ci mbirum deewuk almasi bi lu doy waar la xalaat leen ci junni at laata almasi bi di juddu daawuda doon na benn bennal ni almasi bi naroon na daje coono ci kaw bant ba ko nit ñi daajoon xëy na li nu war a xam te fàttali ko mooy lii waa rom ñoo sosoon daaj nit ci bant muy deegu metti gi ñuy woowe crucifixion ci français waaye bi ko da di bind ci saboor xeetu rom amagul woon sax te kenn xamagul woon pexem rey nit moomu di crucifixion maanaam daaj nit ci bant waaye yàlla sol na xebaaru deewuk almasi bi ci bant ba ci xelu daawuda xiir ko mu bind ko ci saboor ngir nu mën a xam xel na deewuk almasi bi ci bant ba pexem yàlla la ngir musal nu ci sunu mbugaluk bàkkaar waaye du pexem nit dëgg gi saar wi ëmb leer na nàññ te war nanu ko fonk waaye xabaaru yàlla bile ñépp nanguwuñu ko nag ba tey am na nit ñuy weddi li yonent yàlla daawuda bindoon ci saboor ci mbirum saraxu almasi bi mbind mi wax na ci ñoom ne yëgleb deewub almasi bi ca bant ba ak ndof la ci ñiy sànko waaye ci nun ñi aw ci yoonu mucc gi doole yàlla la ci lu wóor ñi weddi deewug almasi ci bant bi xamuñu mbindi yonent yi mbaa pexe yàlla ngir musal baakaarkat yi léegi nanu gën a dugg ci li daawuda bindoon ci anami deew almasi bi ci bant ba dégg nanu ni almasi bi waxe naan sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ku ma gis di ma ñaawal di ma biiñ tey wëcc boppam naan kii moo dénk boppam aji sax ji na ko xettali ndagam sopp na ko na ko musal sama bakkan a ngiy tuur ni ndox sama yax yépp yoqi sama xol mel ni sondeel di seey ci sama biir sama doole ngis na ba ma mel ni xandeer te làmmiñ wi taq ci denqaleñ ji tëral nga ma ci pëndu dee ndaxte ay xaj ñu ngi ma wër mbooloo mu bon dar ma képp ñu bët samay loxo ak samay tànk samay yax yépp ñu ngi ne fàng nit ñi di ma seetaan ànd ak mbég ñu seddoo samay yére tegoo ay bant sama col ci wax yooyu nag daawuda doon na yëgle ne gannaaw ba nit ñi daaje almasi ci bant dinañu ko ñaawal biiñ ko seetaan ko te seddoo ay yéreem tegoo ay bant colam te loolu mooy li xewoon tembe junni at gannaaw bi ko daawuda bindee déglu leen li ñu bind ci linjiil ci lu jëm ci deewuk yéesu almasi bi mbind mi noonu ñu daaj ko ca bant ba ñu daldi séddoo ay yérem tegoo ko ay bant ba noppi toog fa di ko wottu ñafa doon romb di ko xas di wëcc seen bopp ndax sib ko naan boo nekkee doomu yàlla wàccal ci bant bi sëriñ su mag sa ak xutbakat ya ak njiit ya di ko ñaawal naan waa ji musal na ñeneen ñi te mënul musal boppam ndegam mooy buuru israel na wàcc léegi ci bant bi nu gëm ko gannaaw dénk na boppam yàlla kon na ko yàlla musal bu ko soppee ndaxte nee na maay doomu yàlla noonu mooy ni linjiil nettalee ni wax yonent yàlla daawuda ame woon dégg nanu it tey ne daawuda waxoon na ni almasi bi naroon na mare te sonn lool ci yaramam ak ci biir ruuwam ak xelam looloo tax almasi bi yuuxu ci aaya bu jëkk bi naan sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma te soo gëstoo ci linjiil dinga ci gis ne loolu itam xewoon na tembe ni ko daawuda waxe woon ci sa buur bi lu taxoon almasi bi yuuxu ci kaw bant ba ne sama yàlla sama yàlla lu tax nga dëdduma ndaxte yàlla ku sell la te mënula dékku bàkkaar yàlla moom ci boppam waroon na dëddu almasi bi ñu daaj ci bant bi xàjjali ko ak moom ndaxte yàlla sëf na ko sunu mbugalu bàkkaar gépp looloo tax mbind mi ne almasi bi musula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën a doon njubteg yàlla waaye cant ñeel na yàlla ndaxte am na leneen lu yonent yàlla daaw daawuda yëgle woon ci sabuur te warees na ko xem ci saar fukk ak juróom benn daawuda bindoon na ci mbirum almasi bi naan yow yàlla doo wàcc sama ruu ca barsaq doo bàyyi sa waa ju sell yàqu dinga ma teg ci yoonu dund noonu la daawuda yëgle woon ni yàlla fase woon yéene dekkal almasi bi ci bàmmeel ba ngir képp ku ko gëm mëna dund ak moom ci jataayu yàlla ju sell ji ba faw noonu linjiil nee na almasi bi deena ngir dind sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko mu dekki ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale te daawuda bindoon na it ne gannaaw bu almasi bi dekkee ca néew ya yàlla dina ko yéege asamaan wax ko mu toog ci ndeyjooram ba kero muy dellu si ngir àtte waa àddina si moom la daawuda bind ci saboor saar téeméer ak fukk bi mu ne aji sax ji nee na sama boroom toogal ci sama ndeyjoor ba kera may daaneel say noon ci sa kanam ci mujjug sar ñaar fukk ak ñaar nag daawuda bind na ne cati àddina yépp dinañu rabal seen xel ba walbatiku ci aji sax ji giiri xeet yépp sukk fi sa kanam ñiy bëgg a ñëw dinañu ko jaamu ay giiri giir dégg lu jëm ci moom ñu ñëw di biral jëfu njubam ci xeet wi ju doogul ne moo ko matal amin ci baat yooyu la sabuur bi jeexe moo ko matal lan la almasi bi naroona matal waroon na matal lépp li yàlla digoon aadama ak awa ci mbirum ramukat bi waroona a ñëw musal leen ak seeni askan ci seen mbugaluk bàkkaar jaare ko ci deewam ca bant ba almasi bi waroon na matal takkandeeri saraxi mala yi yàlla laajoon bàkkaarkat yi ca jamono yu jëkk ya deewuk almasi bi waroon matal it misaalu xaru tabaski ni xar ma deewaloon doomu ibrahima ramukat bi ñëw na ngir dewal nu nun ñépp looloo tax laata almasi bi dee mu waxoon ak baat bu dëgër naan lépp mat na te yàlla firndeel na matuk saraxu almasi bi ci limu ko dekkal ca néew ya ca ñetteelu fan ba kon nag mbokk yi sunu fàtte lépp li nu jàngoon tey ba mu des lenn rekk na nekk lii lu mat junni at lu jiitu juddub yeesu kirist yonent daaw daawuda jegle woon na ne bàkkaarkat yi dinañu bëtt loxoy almasi bi ak i tànkam te bu nu fàtte it lu waraloon deegu metti gi almasi bi dajoon dee na ngir yow ak man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 ci émission bi di ñëw dinañu jëm kanam ci mbind yonent yi ba dugg ci nettalib doomu daawuda di yonent yàlla suleymaan waaye ku bëgg yaatal sa xam-xam ci mbind yonent yi bind nu nu yónnee la këyit yu am maanaa sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci waxi almasi bi yi daawuda bindoon ci sa sabuur bu yàgg bi mu naan ñu bët samay loxo ak samay tànk